mbokki àdduna wërngal këpp ñoo ngi fii ci armeel euh, yu dàngu fii ci Tëngéej waaye nag dafa am coow lu fi am ñu am koo xam ne mooy ñi nga xam ne ñoom la ñuy woowee ñaari tur dafa am kenn ku ñu fi indi bëgg ko suul fii euh, ñi nga xam ne ñoom ñu koy waaj a suul bëgg ko indil fii waajale ko fi waa dàngu yi yëpp génn ne fii kenn du ko fi suul koo xam ne ñaari tur la am ma fekk fi nag koo xam ne mooy le président de la l'ASC gi euh, grand ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum lay fay cher ah li nga xam ne moo xew tey fii si cimetière Dàmbu mooy ku ñu ooyee borom ñaari tur si sa njaboot ñu a andi fii ci am nañ Dàmbu suuka fi ñun waa Dàmbu taxaw marqué de position catégorique ne kenn du ko suuf te kenn mënuñu tax a dellu gannaaw suñu position li tax ngi ne kenn du ko fi suuf c'est une question d'actualité tey boo xool Tivaouane Touba Yoff Ndiassane église bi yëpp ñu ngi xeex li nga xam ne mooy homosexualité malheureusement le président n'a pas encore pris une position claire nette et catégorique mm. sur question loolu moo tax tey nous d'abord on va profiter de cette occasion pour montrer à la face du monde que l'homosexualité est une par toutes les religions. Merci beaucoup. Merci. voilà grand yow loo ciy wax. waaw ñu nuyu ñëpp rek di sant ñëpp rek bon li ñu wax rek mooy li jeune yi wax rek moom vraiment. loolu moom rafetul jekkul jaadu quoi ñun nag ñu ngi fi ba 5 heures du matin mais kenn du fi denc incha ma gis fi tamit Baye Fallou Tëngéej bi muy euh, Bàcci Massamba euh, Bàcci ku ko xam xam ne Tëngéej si euh, fayet lay ne xeex lu jaaduwul yoon da nga ciy fekk. Baye Fall bi noo def. waaw ñu ngi sant bu wér waay. Baye Fall bi nga xam ne xew na fi nga gis Baye Fall yëpp ñëw lan moo siy sa kàddu. mooy ñun comme lu ñuy wax rek mooy ñun dañ ne ñun Tëngéej lañ dëkk ba pare dañu gëm yàlla ak Seydina Mohamed kase booloo ñu si leneen ñun yàlla ak Seydina Muhammad kase kon tey bu fekkee ne yàlla dafa am lu mu wax bind ko si alxuraan Seydina Muhammad ñëw feelu ko sañu imaam yi fi nekk tamit xam ne loolu la yàlla wax ak Seydina Muhammad kon tey waruñu nangu ñu fiy dugal sax ab góor jigéen wala ko dul góor jigéen man nag dama di benn Baay Faal bu dëgg Tëngéej lépp lu ñuy dox si Tëngéej muy dëgg muy injustice man maa si biir mhm. buñ yóbbu ñu yóbbu ma fu ñu mën a yóbbu seen problème la mais ñun du ñu nangu alméer yi nga xamante ne ay kilifa ñoo fi tëdd ay kilifa. Mm-hmm. ñoo xamante ne dañu jàng alxuraan ñii defar tëngee tëngee tey bu juddoo ñi ko defar la ñu suul fii. Mm-hmm. ñuy nangu benn di yàq ay kilifa yu bari yu nekk fii am na loo xamante ne nit ñi duñ ko nangu am na loo xamante ne mën naa am feneen mais du am dàngu. ñun ñii nga xam ne ñooy population bi jeunesse bi ak Baye Fall bi ñoo si buntu almeer yi lépp loo xamante ne laaj na ko dinañ ko def ñun Tëngéej moo ñu intéressé almeer Tëngéej moo ñu intéressé yàlla ak Seydina Mouhamed rek. leneen jaaxaluñu. jërëjëf Baye Fall ay ca bu ngi noonu kooku mooy Baye Fall bi muy Baye Fallu Tëngéej bi ñëpp xam ko mu di koo xam ne ah, tey boo fi ñëwee gis ngeen li fi ne rek moom la wax ah baay Fall bi ah, li fi ne tey boo xoolee ah, responsable yu Tëngéej yi genn wàll gi yëpp ñoo ngi fi Euh, pour xeex li nga xam ne tey jii euh, mu ngi nar a am fii ci armée li dàngu yi euh, di wax ne bëgg nañu nag gars yi xam ne jot na nag pour que lu ci war ñu def ko xam ne tamit góor jigéen moom nekk na loo xam ne fii ci Tëngéej ñun waa Tëngéej du ñu ci euh, waxtaan ak kenn dañu ciy def li nga xam ne moo war moo waral tey nga gis ñi ñëpp tey ñëw taxaw fi nee nañu du ñu fi jóg fii la ñuy toog euh, ba euh, ñi ñi ñëw fekk leen fi ba lu ñu ci góobee gar ko waaye góor jigéen moom du amee fii li mu bëgg ci Tëngéej muy loo xam ne tey am na fi ay doomu dàngu ñoom ñëpp ñoo ngi fi ah tey boo xoolee mbër yi ñëw nañu àndax gaay gaay yaa ngi nii voilà gaay yaa ngi ni Baye Fallou Tëngéej ji bëgg naa leen ay ca gis nga eh, di wax gars yi Baye Fall baa ngi nii doomu Tëngéej ñu ngi noonu waaw moom xam nga ñëw na fekk affaire yi waaw gis ngeen gars yi ñëpp a ngi fi ah yaa ngi fi toog jaajëf yaa ngi fi gis nga voilà gars yi ngeen gis ko nit ñaa ngi nii moo fi am gars ay ca mu ngi noonu waa Tëngéej dama ñëw seen xarit Soumaré pour di leen wan li nga xam ne rek mooy actualité fii ci Tëngéej nekk fi loo xam ne nii fi mu toll nii euh, coow li bari na ñi nga xam ne nag ñooy responsable yi fii ci dàngu ñoom ñëpp génn nañu wane ne fii loolu du fi am kon donc gars yi nañ ko waxaat waxati ko góor jigéen sa àll ba comme ni ko gars yi waxee góor jigéen daal na dem quoi góor jigéen na dem badoo yi noonu voilà moom it mën naa ko jël tuuti Madou yow ñu gis nga ñëw taxaw yow tamit bokk ci combat bi. waaw mooy loolu ñun daal dañu xëy informé ñu dañu dafa am benn boy bu nekk Sane Diaba bu gaañu boo jigéen la te bëgguñu bu dugg ci armée te fii armée ay kilifa ñoo fi dëkk ay bu dul woon bu dul ay kilifa tuddul woon tëddul woon sax góor jigéen du fi dugg. tey bu jaree bakkan sax dañ koy joxe. waaye daal coow li mooy góor jigéen du fi dugg. du fi dugg jeex na. ay ci jërëjëf Badou kontaan nañu gars yi mu ngi noonu loolu mooy nga xam ne moom lañ leen jëralee fii Ah, ci dàngu ah, di wax ne gars yi na nañu góor jigéen du fi dugg góor jigéen du fi dugg mooy wax ji point góor jigéen du fi dugg jaay njëf gars yi bëgg naa leen siyaat